mu dox ci diggante caatu piol bi ak amabu bu malika arbi baa wahal wax ak ñom li mu nangu li laa mu bañ sibla mo leen di bolé waye mo leen di taxalé ama malika lañ jakar lol, jadi piol mo ñu won ginaaw waye ci côté ba Balla kay dugg ci na ci bir lamb ji le lion di way dugg ci na and rakam di taxaw rakam muy gaku de di pousser vers la victoire diggante ma Pokola wala caatu piol bi mi ngay capi capi ma ngay daw di wër ma ngay daw di wër caatu piol ma ngay samet mètres ma ngay samet ma ngay samet mom moom piol bi xola Ama Malika capi capi na oh xala ya ngay capi capi wone sen façon ak sen manière xala ya ngi nonu caatu piol bi bayiko Grand medine Ama bu Malika bàyyi ko Malika mi ngi noonu ñoom ñaar ci biir géew bi ginnaaw arbitre wax ak ñoom ndax pare ngeen am déet Zizi si pare nga mu ne ko waaw troisième si pare nga mu ne ko waaw Ama pare nga mu ni ko waaw Caatu Puyol pare nga mu ne ko waaw day siffle combat bi siffle na ko siffle na combat bi Ama bu Malika moo féete à moom lañ jàkkaar lool Caatu bi moo ñu wan ginnaaw jox ko payam jox ko payam jox ko payam ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ñoom ñaar ñi ngi lewtoo caati Piyol Ama Malika kurpañ amagul de taxawal booy bul amagul caati Piyol Ama Malika di ñaari mbër yu xees Caatu Peol moo ñu wan ginnaaw bàyyi ko Grand Médine Ama bu Malika moom lañ jàkkaar lool bàyyi ko Malika sama xel dem na ci Pape Demba mbokku ndeyum Ama bu Malika la mama bii may wax ak yow mi ngi foofee ca Espagne di ko ñaanal jàmm ak képp ku fa nekk ndeysaan képp kuy immigré rek ñu lay siyaar di la ñaanal jàmm di wax yàlla na yàlla dafay leen jàmm ba ngeen ñibbi si waat Sénégal si Ama Malika arbitre wane leen ci biir géew bi arbitre wane leen ci biir géew bi mi ngi wax ak ñoom nee ngeen bëre bu ñu déranger sibla na combat bi Caat door na coup bu sew génnaat combat kalkin la di ñaari xale yu xamante ne bii ay yaakaaru làmb làmb di leen bàyyi xel ñoom ñaar Ama Caatu Malika Caat dagg na leewtoo bi Ama Malika Caatu Piol bi Caat dox ci kawam Ama replié ama bu Malika uh, ak caatu piol bi caat door na génnaat ay coup dégagement la ay coup dégagement la ama bu Malika lañ jàkkaar caatu piol moo ñu woon ginnaaw waaw ndeysaan ba tey ñaar ah dox ci kawam ama ay eh, door ko coup eh jël na ko coup day daw luy xew luy xew takk na ko jàpp na ko dañuy bëre ñoom ñaar daa jël coup mom moom caatu piol bi rëpp nañ arbitre sifflé na arbitre sifflé na xale yaa ngay bëre naaw ama bu malika da koo dóor caat xaw a kaawoo ama ko topp action caatu piol bi la Caatu Piol Ama Malika ba tey ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ba ñaar ñi ngi lewtoo Caatu Piol Ama Malika fii lay xewee ci arène nationale Fouta production moo di journée bu spéciale mais ñaari xale yi ay ndaanaan lañ de non laa mujjee àgg foofu ci tey bis bu mag nagu magasi daal mais lambu buñ ko foyee mais fii lañ fore Pokola fii lañ fore Gàkku si combat bu mel nii mais si lañ war a fore Ama wala ñu forcer far booy Malika bi. caatu piyool bi caatu piyool bi. xoolal bëri bi ñu jot a bëri bi mu màmmee si koom bi mu ko prene góos si la màmmee fële daw ñëw. xam ne combat bi day neex. parce que ñaari tànk yi ñu teg la ceeb. ñaari tànk yi saa yu ko tegee ma seetaan si. ñaari pied droit waaw kay. saa yu kenn ki tegee gauche droit man ma dem. nga dem bàyyi leen. loo te dañuy topp xeex bi te duñ bëre. mais bi day gaaw xeex bi mën naa gaaw. parce que xoolal ñaari tànk yi nañ jege ñeex. bu la neexee da ngay ko gis nga. ama jàpp na ko tàgg na ko. yëkkati caxabal daan na ko lu xew daan na ko ama malika daan na ko mburu pap demba bi daan na ko loxo baa ngay karamp loxo baa ngay karamp loxo baa ngay karamp ana saapoor yi ana saapoor yi amaa noonu ma ree nee lan la nee na lan la nee na la nee na moom la daan na ko jël bu rëy Ama bu Malika daan na caatu piol bi ndeysaan sible na ceer ñang mbaalo ak Ibo bu keur Mbay Fall. ñi ngi lay toog ñaar jii lii. ceer wéyalal ceer. ñang mbaalo moom lañ jakar lol bayiko ko door Ibo bayiko keur Kër Mbay Fall mo ñu won ginaaw ñi ngi lay ñom ñaar gurpañ amagul waye ciongu amagul Ibo di bare bërekat di nanan waye ñang balo ndox du bare nek ci mom muy nanan bayiko ci keppaaru sos ci keppaaru dóor ci keppaaru ñoom booy fay jili waaw Thier ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo waaye boo xoolee Ibo tànk càmmoñ la jiital ñang mbaalo jiital tànk càmmoñ mu nekk combat boo xamante ne ñoom ñaar ñëpp ñaari fausse garde la ñang mbaalo bi mu fi mujj daa dóor mu daanu Ibo bi mu fi mujj daa ñàkk digganteem ak Bécaye kon ñoom ñaar ku ci nekk am na ku ci ndam arrangé waaye am na ci koo xam ne moom ndam baaxut ci moom xale bii di Ibo warul teg la ñaari defet ndax jàmm Kër Mbaye Fall gi nga xamante ne dañ koo ak tund ñoojoor waaye ñang mbaalo combat bi nga xamante ne da koo indi ci mbooloo waru koo ñàkk ndax parcelle gépp dañ ko topp jël na ko lu bay xew takk na ko takk na ko takk na ko eh, nopp na nopp na nopp na ma ngay dóor ñang ah. mbaalo dóor na ko ci fàq na ko mu bañ fàq na ko mu bañ Ibo koy bëre ñoom ñaar attention Ibo la ilaha illallah da ngay dóor ñang mbaalo Ibo ma ngay fay da ma ngay dóor ma ngay dóor ma mbaa dóor mu daanu du am. sab talu bi. mbaa dóor mu daanu du am. ñang baalo ngay dóor ci suuf. ma ngay dóor dana ko rey. ma ngay dóor dana ko rey Ibou ma ngay dóor. ñang baalo ngay ngay wuti fu mu jàpp. ndeysaan. laa ilaha illallah. Ibou baalo xale yaa ngi bëre. xeex bi metti na. ñaari xale yi dañoo a waaw ñanga ngay dóor. ma ngay dóor ñanga ngay dóor. Ibou ngay mais Ibo ngi liggéey nag. ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk lamb ji daa am lu a la jaral. waaw combat la. laa ilaha illallah bu doon maa Ibo damay tàqali koo bëre. ndax fi mu dugg ak sa ñang mbaalo la. bi ñang mbaalo la ndax uppercut mooy fooram. baax na ko bëre kan la war na ko ndombo. bëre kan la daa mën a bëre. Ibo war na ko ndombo lu may xew. Ibo war na ko ndombo. day jeex wala. Ibo war na ko ndombo. daa waane moom Ibo. yëkkati ba ci kaw mbaala Ibo. taxal bal takk na ko. ñang mbaala Ibo lu fay xew lu muy def nii. daanu na li nga def ëpp na. munoo daanu daan ba pare dóor ko. munoo daanu daan na. daan na bi daan na. laay la xëy bi daan na. daan na ko jëlee mu ay ñang mbaalo. dañ ko bàyyi ay daan na.